Ousin tey jii nii ma gis ne presque euh, anniversaire Wally Seck euh, Ousin Keita dem na fa joué na ñu teg ci quelque semaine ma dégg mu ne moom tey jii nii Wally Seck ayee tant que woowu ko moom Ousin Keita Wally wool ko boppam moom du déplacé wu dem lu waral loolu. dégg naa li ko baax. Mhm. Wally Seck. daanaka mhm. woo téléphone. dégg naa soog du toog du mhm. ma woo Ouzin Keita si loolu la suñu waxtaan di ko seetaan man Ndiaga Euro moom woo. Ndiaga Euro. waaw ok moom woo dama Ouzin invité naa la damaa ma ne ma waa a ma Ndiaga na ma invité nañ la ma sant rafet soo yëre bi seet soo gës bu amul kenn sama gës ba maa ko commandé eh, mille euros. Oh. mille euros. sauf là benn euro bu ma ko di commandé benn euro. Mhm. sama xarit bi nekk sama benn xarit euh, moom sama benn xarit madame Camara madame Camara mbokk yaay su kay madame Kayta moom mu ngi ko commandé na ma us nekk dama nga sant ma sant ko dem ba ma demee ma dem foofu ne si si nekk si liste bi ba ma demee Camara jënd wax naa. avant may gis caméra yi dégg naa ne ni mu ànd ak mujjee maire. ba ba ko gis Fala ñu gis ñu nekkee ñu dem bi. ok ndax bal naa li mu wax ñuy taxul lu wax dëgg ma comprendre naa. Hmm. a jox man fu ma duggee neexuma dama war duggee fu ndaa duggee man si laa duggee da war ma duggee foofu ma war kon doomu am ni bu ko évité dañ koy yëg dama ko yëg moom sama sama àdduna mu ku ma yëgul faalo la waaye seen jàpp la. te sama foofu nga duggee Ouzin. waaw xam naa yëg ko waaye nag ko war a wax. wala loolu waaye moo tax Wally du ma ko du ma ko la xam te sama mag la erreur am na mënut a ñàkk. ba Olof Ndiaye nee moo tax ma ne li mu wax ba tey ko wax. man tant que waaye foofu woowu ma du ma du ma dem naa ko wax te waaye foofu bu la woowee bu la woowee dina la jox bàyyi. Ouzin Keita la. ndax man euh, euh, euh, du ma nëbb. li mhm. ñëpp seen xëy na waaye c' est que Pape mhm. sa mag la Pape la. ok dama ko dugg ma waaye Pape Diouf faruma kenn faruma faruma si Ats dan ats la fal sama papa la wal sama mag la juste ni sama papa sama mam la hmm. defal ko maag kenn xëccoo maag kenn falu ni wax sa defal ko maag moom non mais attends Ousin ma ma ma ngi ñëw ma waa anniversaire Pape Diouf ba waaw nan ma wo exactement ma toj anniversaire ba may jël suus maa ko di a passage ni ko bëri may ma ma toj anniversaire ba te grand théâtre keneen keneen keneen ñaar ak si ñu ma a gis damay def dem teg Sorano. dem ba gis ba gis ba fa dama faatal. dem ba gis instant mu ngi tourné européen lan moo tax yóbbaale wala. non mun maa yóbbaale ndax xam nga mun maa yóbbaale. Mhm. ndax man kenn ma yóbbaale du ma poset du ma yóbbaale. leer na donc Ouzin kete nee na. man ku ku ma di Europe kenn du ko yóbbu. ma koy Europe da nga may ku ma yóbbu Europe. <laughs> su ma obligé dégg damay damay signé ma yóbbu Europe si noonu. non mais demoon nga fi benn anniversaire Europe nga téye sa valise egg teg ko ci digg. waaw du anniversaire da ngaa jublu. non Zénith Zénithu kii bi la pardon Zénithu. waaw waali la woon nga yóbbu sa valise. def ko ci kooku jëm naa Zénith taxaw naa bés. taxaw naa dëkk man pour ku baax. ku baax fu ne taxaw naa fa. taxaw nga Suède. taxaw naa Suède taxaw naa Danemark taxaw naa Finlande taxaw naa Suisse fu waaye nit ku baax ku ne. taxaw taxaw mais mais kon yow fu mu toll yaa ngi ku baax ku taxaw naa fa. Mm. sant na yàlla baax foo fekk sama kër du ma ne du ma ne namm naa dara ndax fii ku namm dara maa ngi sant yàlla ndax olof yaay dañu lu doy lu doy liggéey te gis am si dara du ma ne u nekket aw ma dara nag ba tey amu ma dara ndax maa ngi sant yàlla ndax dara moo ne sama àdduna sama waajur du ma ne am naa dara moo tax ci àdduna waali sama mag la sama xam man du ma xëccoo kenn sa jur nga def bi histoire xam laa bañ ku ma yeb d'accord donc noo gisee woon anniversaire waali bi saa été bàkki Alaaji Fall Mbàkke wàcc dafa wàcc àdduna noo gisee noo gisee sañse yi sañse yi ak papa ah, eh, sañse yi papa <laughs> papa cama ñu so ni ki kaataka sama xayma la sama xayma waaw Papa Thion man dafa dekkali dafa dekkali cosaan Ouzin kay. waaw Papa Thion li mu moo jur bës bi waaye fekk bës bu bu dee fekk Papa Thion day sa doom de nag Pawlish. bàyyi bàyyi ko gis naa ko def version man la Ouzin non wuy ma non version bi baax na ma version nga sol moom yaa ko gën a tegu ci jàppason bi mais moom tam bu mu sol waaw waxala dama sa non mais dëkk bi da li ma la wax parce que jour boobu da nga ko man affaire dafa jeex am ko ma contacté na ma ndax suivre nga ci ci ci coulisses lu mu sol man na ko mais Ouzin lu mu sol dafa rafet mu ne ma non Ouzin kay xaw ma vraiment kan moo ko ka yi te léegi léegi leeral madame Camara moo fa jaar madame Camara moo fa jaar bu ma ko jëloon Italie ok mais yow Pawlish mu toll nii saa yee quoi. ah Pawlish sama doom la sama bokkul Pawlish nee naa ma man baayam ma ma baayam ñu yëgaloo seen i suñu am maam am maamam maanaam baayam am maam papa Thion ñu yëgaloo seen i suñu. d' accord ma. ba may dem ba may eh, ba may taxaw seen seen mag benn naanaan taxaw moom moom est ce que génn moom daa mel ni génn. ba may taxaw ndaanaan ba may taxaw dama dem wër ba may taxaw seen mag ndaanaan benn daan taxaw fa mhm. ñu ngay dégg ñëpp su ma fa Sir Diop mu ngay dégg ñoom El Hadj Keita ñu El Hadj Keita El Hadj Keita kooku sama doom baay sama xarit dama bëgg teyaal sax ok waaye yéen ñaar seen sant dafa nduroo yéen ñaar famille la ñu bokk maam ah ñaar bokk maam waaw ñu bokk maam ok yow da nga sama maam it ay buy man a woy sama yaay mooy jiwal d'accord man la sama maam nañ ka war a baax di ko baax di ko muy maye comme tey euh, man Ouzin Keita xooloo maa kenn loolu ma benn ak si yëpp samay nan ak si yëpp sama doom la taala ci saaka ok mais dañuy gis ne artistes yi artistes tamit euh, Ouzin Keita ñoom a ah, tout le temps dañuy focaliser wu ci benn jëmm koo xamante ni Richard la wala dafa siiw lool ñu ñu koy daal di wëy te Ouzin ba léegi man musuma dégg mu jël benn musique rek jaglelee ko benn ndaanaan bu nekk ci réew bi di ko woy ci benn musique lu tax man su style bopp laa yor moo tax. sa style mooy lan. sa style mooy su style bopp. waaw ku bëri miskaaf may def. man du ma ci style bu ma ma laaj benn question. benn jour benn daanaan dana ma il la. man Ouzin Keita dootul si ginnaaw kenn. non loolu dafa leer loolu moom dafa leer. man damaa gëm sama bopp dëgg sama bopp. ok mais Marème Faye Sall bi la may 2 millions yi kooku xanaa jagleel nga ko benn musique. waaw du wéy naa ko benn wéy. wéy nga ko benn wéy. waaw génn wala génn ko. Euh, son bi génn waaye clip bi génnagul. bi génn mais bi génnagul. maa ko nekk. yaa ko nekk. mais pare damay damay waaj damay euh, waaj benn affaire bu garaaw. mais wute loolu ngay waaj xam nga sànq sa njëlbeen ba yaa ngi koy wax mais doo ñu si ñamoon tuuti rek nga ne yaa ngi waaja def lii yëpp yëpp comme ça non mais attends du question ku ñëpp xam doo dem foo yegg man naa la ñaanal naa la ñaanal léegi dama bëgg rek xam exactement Ouzin Keita lu muy waaj lu mu doon waaw pour comme ça comme comme ça nga njëkk a si suñu site bi comme ça ñu ne Ouzin Keita na kaa wax si seen kaddu ne moo ngi waajal sénégalais lii ak maa ngi waaj sama anniversaire fan la

mais Ousin instant bi ni xam nga lu mel premier parti lu mel ni instant bi ñoom Thiat Seck ak ñoom Sidi Diop dañ leen di dégg chaque lundi comme chat Seck instant bi sak lundi am na fu muy tëgg di ko jouer waaw man mais Ousin nag lu waral loolu moom tamit lan moo tax amul loolu Ousin 6 ans de carrière c'est trop waaw Ousin da kay xam nga loolu Ousin def na ci Ousin kay def na ba digg euh Ousin du ragal ndax bu déggee ci ñu ma ëpp ci àdduna ñaar ñaar ndaan ndaan ko fon ci àdduna Euh, euh, euh, bone maa ngi ba fukki àdduna tëbb waa Seck waa Seck si maa ngi fukki gaynde ak benn at daf ma fukki si géew benn at si dàpp ma géew masha Allah ndax cat sama cat sama cat moom benn ba at si ma fukki si géew gisuma ko man kenn daf ma fukki ma si géew mhm. ndax tey jii mën na bëri si géew ñu xam ne doomu doomu léegi doo xam léegi ki ëpp ko xam léegi xam léegi ki ëpp ko fukki àdduna mhm.